ak yoonu murit ngir sàkku ngërëmal borom Tuubaa bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi alladi nazala ala abdihi alquran wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa sallama murattilil quran wa ala alihi wa sahabatihi katabatil quran wa an xadimihi almuxtarimi almukarrimi irda munsilil quran ama baadu fa haakum nubsatan min mawridi sam'an fi taalimi fadilati qiraati wa iqraai alquran wala naanukaay buy màndal ku mar ci xamle jàng ak jàngale alquran war gi mu war euh, ab sëriñ daar nag bu ñuy wax Habib Rasul si surtout sëriñ Maxtaar Penda si di doomi sëriñ Malick Basin si mbaaban murit moo fas yéene fàttali ki xamoon xamal ki xamul woon ngëneeli jàng ak jàngale alxuraan ngir ab sëriñ daara léegi dañu ko woyofal lool amit ay sëriñ daara yu woyofal seen bopp lool ngir noor fi barab ànd ak gone wax ne da leen di jàngal alxuraan far di leen yalwaan loo ngir looy faje say soxla ne bokkul ak sëriñ daara yenu xamoon nun te sëriñ daara yooyu kat tax na ñuy sikkal daara waaye day kuy tuddoo lislaam tey sikkal daara ak sëriñ daara ak dongob daara ak gëm yàllaam weesuwul gémmiñam ngir barab bu ñuy xamlee kitaaballahi ak kuy xamle kitaaballahi ak kuy xamlu kitaaballahi ku leen di sikkal ak njulitam rafetul ah waaye nag yow mi sëriñ daara bul tiit ngir seeni wax mënuñoo yàq daara yi mën nañ cee ñaawal seen njulit ak ñu xam ci seen ak naafiq waaye yàq daara mënuñu ko loolu ñuy wax naan xool leen gone yi ni ñu tilimee ak xool leen gone yi ni ñu raflee ak yi ñu sol ni mu xarawee loolu seytaanee leen ko sant waaye bu ñu xoolee apprenti bay la nga ci wata ba nam tilimee ak lam sol nam xare te duñu ko wax gone mécanicien ni ñu tilimee ak na ñu taqee diw ak coono ba ñuy daj te duñu ko wax lañ jëmul ci alxuraan tax kon dañuy xeex alxuraan waaye loolu du ci yàq dara alxuraan moom bu yàgg la woon nabi muhammad melow ñooñu daf ko ne yaa ayuha rasul laa yuxsinka allazina yusaaricuuna fi lkufr min allazina qaalu aamana bi afwaahihim walam tuumin qulubuhum ñoo ñu nga xam ne dañ njëkkante jëm ci yëfër yi di wax ci seen làmmiñ ne gëm nañ ci seen yi rek lañu ko wax waaye seen xol gëmut kon ñooñu xam nga ne du ñu mën a yàq daara ngir yàlla nee na wa jaala kalimata allazina kafaru sufla wa kalimatullahi hiya al uluya gannaaw waxi ku weddi moom suuf rekk lay jëm te wax jëm ci yàlla kaw rek lay jëm a ah, loolu kon yomb naa muñ daara nag mën naa caa waxtaan te bu jëkk ak léegi ngir man mii di wax ak yéen maa ngi dal jàng atum 1932 waaye booba ab sëriñ daara du jàngale ngir yelwaanlu du jàngale di fayu du jàngale euh, du jàngale di fayu jàngale di fayu sax amoon na te bu jëkk ngir gis naa addis ba te addis moom loo dégg wax ko rek lu amoon la waaye wolof bu di ab julit dëkk Sénégal lay seen baax mooy di dundal ku leen dul fay ak jàngal ku leen dul fay ngir sàkk tuyaaba loolu mooy aaday wolof buy ab julit rawatina nag ab murit ngir laa jene innama nut'imukum li wajhillahi la nuridu minkum an wala shukura inna naxaafu min rabbina yawman abusa ñoom laay jooju la ñu sukkandikoo bay yor nit te du leen jëriñ dara ab sëriñ daara booba dongo yi dañu koy liggéeyal mu di leen jàngal di leen dundal ca la ñuy liggéeyee xam nga lu ci indi yelwaan mooy dong bu mag bu laxas ñëw ci daara ji indiwaale fi ay gone yu muy jàngal nga xam ne sëriñ daara bu mag bi xamul leen jotewut ak ñoom dara xam nga yooyu gone a ah, bu ñu demal kaang mi àllarba ak dibéer moo tax kàng ma moomit du war nu dund loolu moo waraloon ñu yelwaan eh, léegi bi nga xamee ne nag nit dafay ñëw nga di ko jàngal te du la liggéeyal moo indi ñooñu di fayu waaye léegi daal nañ bàyyi yooyu tu jëm ci wan la màggaayub téere bi damay wax ne téere bu dul alxuraan du ab téere fa sunu borom te foo gis téere boo xam ne ka ko taalif gëmul yàlla xamul alxuraan nam waree téereem ba du téereeb dara te du ab téere fa yàlla am na ñuy taalif ay téere ngir bëgg a réeral ñi xamul alxuraan moo tax sunu borom wax ne wa inna minhum la fariqan يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون dañuy dem fexe ba forfait ay laaya rek ak yenn yenn ay kaddu rek ñu dugal ko ci seen téere taalif ko wane ne alxuraan la ñuy xamle wala lislaam la ñuy taxawal bëgg rek nga jortu ne lii kat ci alxuraan la waaye kat bu kut ci alxuraan dañ naa lii ci yàlla bàyyi ko waaye kat bàyyi koowul ci yàlla ndax ñoom lañuy wax lépp ay fen la yoo xam ne rek ñu ko jëme ci yàlla te kat ñoo ko tey xam nañ li ñuy wax du dëgg looloo waral ku yeewu balaa jàng benn téere gëstu ba xam ki taalif téere bi ndax gëm na Moustapha sallallahu alayhi wa sallama walla déet ngir téere boo jàng mu am lu mu def ci yow ku la jàngal def ci yow dara kon kii war ngaa seet koo jox sa doom yow mi mag war ngaa seet téere bi ngay jàng waaye nag xam na kuli xaalin bala ma laa wan màggaayu téere bi mu jëkk laa wan na mu dikkee ci yonent bi sallallahu alayhi wa di dox ca saaba ya di jaar suñu baax ñi ba agsi ci ñoom xam-xam boobu maa ngi ko toxalee ci téere ku ñuy wax asayidi muhammadu tahir allaadiqi yi dafa wax ne bismillahi rahmaani rahim haada min axbaari alquran alkarim lii de ay xibaar la yoo xam ne xibaari alquran mu tedd ma nuzuluhu wa jamcuhu wa xissuhu nam wàcce ak nañu ko dajale ba bind ko ak nañu ko mokkale huwa kalaamullahi mu ne moom day téer mu ne moom day wax yàlla al munazzalu ala ala nabiyil ummi wax yàllaa joo xam da ko wàcc yonent boo xam ne dalul baax allazi lam yata'allam ala ustaasin di yonent boo xam ne musta jàngee ci benn jàngalekat walam yaqra kitaaban qablahu mësula jàng benn téere lu jëkk alxuraan walam yaktub bi yadihi harfan mësula bind wenn araf ci loxoom bal allamahu rabbuhu wa addabahu li ci xew kay mooy li xew kay mooy boroomam moo ko xamal te yar ko wa ahsana ta'dibahu mu rafetal tam ab yaram ta'yidan daawati yi ngir dëral ak wooteem ngir su fekkee ne dafay indi ko xamoon wala mu jàngoon wala mu bindoon lu mën a wax ñu ne da ko fortu ci yeneen téere waaye li bàyyikool ci yàlla bëgg a bëgg a ak ak wooteem moo tax mu indi alxuraan wàcce ko ci koo xam ne dalut ba kenn mësu koo jàngal musta bind wa shahidan ala nubuwwati ak seereel ak yonentam wa sidqi risalati ak dëggub ak yonentam ansalahu llahu taala ala rasulihi sayidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam bi lisanin arabiyin fasih sunu borom wàcce alxuraan te yonentam ba muy sunu sang nun julit ñi sallallahu alayhi wa sallam ci làmmiñu arab wu set moom nga dégg mën naa bili na arabiyin mu biinin a ah, alxuraan nag waxi yàlla waaye du waxiinu yàlla waxiinu arab la moo tax mën naa bili zanin arabiyin mu biinin li yahdiya naasa bihi ilal xayri ngir bëgg a gindi nit ñi yóbbu leen ci aw yiw wa yubidahum ani sharri ak mu sori leen ñu soriw ay wa yansaahum an al axlaaqi al ak mu ñaax leen ci ay jikko yu tedd wal aadaabi al aaliyati ak ay teggin yu kawe wal aadaati ak ay baax yu rafet baax yu rafet ak teggin yu euh, yu tedd ak ak euh, teggin yu kawe ak jikko yu tedd mooy lan mooy mina sabri nit ki day nangoo muñ wa shirq ak dëggal wala adli ak maandu wa husnil muamalati ak rafet ak jëflante rafetu jëflante yegg na ci loo wax da nga koy fas yéene def boo lebee da koy fay ku la tooñ da koy baal loolu mooy rafet ak jëflante wala wafaay bil aadi ak di motal kóllëre ndax inna la aada kaana masulan wa awfu bi aadillahi la wax na ngeen di matal seen kóllëre ndax kóllëre kat faaw des na ko laaj boole gi wa muamalatu duafaay yu lompoñ yi day nangoo jëflanteeg ñoom te du seet ne kii kii ku lompoñ la rek faaliwu ma ko wal ihsaani ilal fuqaraa yi day def njëkkit ak teraanga ci ñàkk ñi waaye nit ñàkk rek su la nuyoo doo ko fay doo ko teg fenn bu sàkkoo ci yow euh, ak ko wala mu sàkku ci ak xaritoo nga di ko won kanam goo xam ne gii léerut loolu bokku ci waxaay di saalika ak yu bokkut ak yooyu mimma yuraqi al mujtama nga xam ne day yéege mbooloom lislaam mii wa yunxidu bil afraadi ila ala darajati al hissi wal wa siyaarati ak jikko yoo xam ne day yëkkati buurloo kenn kenn ci nit ñi yóbbu ko ci nga njàkkawee daraja darajay tenn nga ak ak càng léegi nag mu di la xamal ne lam yansilil quran al aziz ala rasulil azim jumlatan wahida alquran daal ma di la xamal ne alxuraan mu tëdd moomu wàccul ci yonent bu màgg moomu benn yoon ba mësaluñ ko rek ne ko juréet muy benn yoon wa inama ansalahu laaw mutafariqan yàlla da ko wàcce tàqale ko xasbal manasabaat wal xawaadis ci kem euh, waxtu yi ak xew-xew yi wa saalika fi mu salasatin wa isrina sanatam wàcce boobu mi ngi toll ci diirub ñaar fukki at ak ñett wa kaana awalu ma nazala minhu waaye nag li njëkk a wàcc ci alquran qawluhu taala iqra bismi rabbika allati xalaqa xalaqa al insana min alaq iqra wa rabbuka al akram allati allama bil qalam allama al insana ma lam yaalam yooyu laaya moo njëkk a wàcc ci alquran wa axiru ma nazala minhu li nga xam ne moom mujj wàcc mooy al yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum lislaama diina jooju laaye moo mujj a wàcc ci alquran laaye jooju mi ngi wàcc ci mujj fi uh, nasala ba uh, maanaam nasal hadihi l aaya fi axiri hajjatin hajjaha nabiyu sallallahu alayhi wa sallama wa alaafu nnaasi wuqufun ala jabali arab wa rasulullahi wal muslimuuna mu mutawajjihan ilallaahi bi du'a nee na keroog bi muy wàcc laaya jooju mooy aj gi rasulullaahi mujj mujj aj makka moom la ñuy wax ajjatul widaay aj gi nga xam ne ci la tàggu nit ñi nga xam ne delluwaatu fa lu mat junni ci ay nit ñu ngi taxaw ci dooju arafata yonent bi ak julli ñi nga xam ne la àndaloon ñoom ñëpp ñu ngi maase jublu ci yàlla di ñaan alxuraan wa kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yaxfazuhu hanil waxyi min jibrila alayhi salaam rasulullahi mokkaloon na ci wax yoo ko amoon sidna jibril moo ko jëloon ci boromam daal di ko jox wa yaamuru asaabahu allatina yuxsinuuna alqiraata wal kitaabata bi kitaabatihi ala suufin wa alwaax saabaam it digal na ñi nga xam ne rafet nañ mbind te rafet aw jàng mu deen ko bindiloo ci ay këyit ak ay alluwa kullama nasalat aayatun aw aksar bépp boo xam ne bi jenn aaya wàcce na mbaalu ko ëpp mu jàngal leen ko wa min asharil kutaabi usmaan ibnu affan ali ibnu abi talib maawiyata ibnu abi sufyaan wa sayd ibnu saabit ñi nga xam ne ñoo gën a siiw ci ñu doon bind alxuraan mooy sidna Ousmane ibnu Affan sidna Ali ibnu Abi Talib sidna Muawiyata ibnu Abi Sufyan sidna Sayd ibnu Sabit ñooñu yu sammuuna kutaabal waxyi ñoom wax ne ñooy bindikati wax yi wa kaana rasulullahi alayhi salaatu wa salaam yadullu asaabahu inda alkitaabati wal hissi ala tartibi zuwar moom rasulullahi moomu salaatu wa salaam daana tegtal sahaaba yi bu ñuy bind ak bu ñuy jàngal xaan bu ko mokkal ni ñu taftalee aayay saar ma wa yuallimuhum mawaadiha mu wax wax leen xamal leen laaya junne fu mu war a nekk ak saar wu nekk fu war a nekk wa kaanu yaqra'uuna dalika amaamahu ala ma rataba wa allama ñoom it daani dikk toog firsulaay jàng alxuraan muy dégg ni leen ko taftalee ak ni leen ko xamale hatta yata akkale min salik ba loolu wóor si ñoom waqad arada nabiyu alayhi salaatu wasalaam baada tamaamihi marratayni ala jibrila qabla mawtihi moom nabilaay Muhammad Muhammad tari na alquran ci kanam yonent bi ñaari yoon ci kanam sidna jibril ko ñaari yoon moom nabilaay Muhammad tari na alquran ci kanam sidna jibril ñaari yoon gannaaw bu alquran wàccee ba jeex kon loolu wér na wan ma am na ilaa ila wan ma am na ila al adadu al kabiru min sahabati am nañu bari ci saaba yi ñoo xam ne mokkaloon nañ alxuraan wa saxaat kitaabatum seen mbind wér wala yakuni suhuf wala alwaax allati kutiba alayha alquran alkarim majmuatun fi soof waaye nag këyit yi ñu bindoon ak alluwa yi nga xam ne bindoon nañ ci alxuraan boolewuñu ko woon muy benn téere faqtara an sayidina omar ibnul xataab ala sayidina abubakrin sidiq alqurana anu tamaan anu tama alxuraan sidna Omar ñëw ci sidna Abubakar ne ko léegi man de bëggoonaa téere bi nga boole ko bëgg naa téere bi nga boole ko bi mu ko waxee sidna Abubakar ne ko man du ma def loo xam ne lii Rasulullah defu ko woon loolu kon day nuru biddaa te man biddaa du ma ko def ndax rasulullaay nekk ni bu jóge fi boolewutoon alxuraan kon nag su ma ko defee di nur biddaa te boo fàtt na ne nañ man sanna sunnatan hasanatan laha laha laha ajur wa ajru man amila biha koo xaay da ngaa sos loo xam ne lii dafa baax yool ba nga cee amee ak yoolab ka ca roy mooy yemoo bi loolu amee si daama mar dem toog fekk daf ko ne li ma ci dagal day mooy faatu lenn ci ci ci mbooloo mi nga xam ne dañoo watu alxuraan te bu ci kenn faatu day day doy war ñu def benn xale lu mat juróom benn ci nga xam ne mokkal nañu alxuraan faatu te fekk boobu fa ñi ko mokkaloon fukk woon ak ñaar ah mu del si ànd quoi Abu Bikri mu naa ah, mu ne ko la ma la xare bi ñu dem de juróom benn nit faatu nañ ci ci fukk yeeg ñaar yi mokkal nañu alxuraan si dinaa Abu Bikri nag ko wax nga dëgg ne alaa quma omar daal digal sayyidna Zayd ibnu Saabit ak sayyidna Ubay ibnu Kaab ak sayyidna Usmaan ibnu Affaan Abi Taalib ne la na ko boole daal daje waxtaan daal di koy boole ci benn téere bind ko ba mu ko bindee téere boobee nga xam ne lañ bokkoon bind ko ñu takk fa kanam sayyidna Abu Bakrin radiyallahu anhu diiru muy dund gannaaw ga ba mu faatoo ñu toxal ko jox ko Sidna Omar mi xalifa bi gannaaw bu Sidna Omar faatoo ñu jox ko doomam umul mu'miniina ku ñuy wax Sidna Afsata kooku mi ngi bokkoon ci soxna yonent bi sallallahu alayhi wa waaye nag Sidna Omar mooy baayam radiyallahu anhu bi nga xamee ne Sidna Ousmane Sidna Omar bàyyi ko na fi muy xalifa mu daal ne léegi daal damaa bëggoon téere boobu ñu jëli ko fexe ba bindaat ko ndax lu ko mooy mbooloo mi nga xam ne ñoo ci dayoo buñ juyooyee téere bi dana mujj dootu wóor mu daal digal Seydina Seydina Saabit mi nga xam ne taxawoon na ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te jàngoon na alxuraan fi kanam mu dégg ko mën a kuutal ñett ak yow ngeen di ñeent ngeen bindal ma ay kaamil ñooñu ñoo ko bindal ay kaamil yu bari ba nga xam ne moo day ba mu delloo ko ab sata mboolem fu péeb lislaam nekk mu yónnee fi ab kaamil ne na ngeen ci toxalee seen alxuraan yónnee na benn ci Makkatal Mukarrama yónnee benn ca Koofa yónnee benn fu ñuy wax Basrata yónnee benn fu ñuy wax Dimask bàyyi beneen mu nekk ci mën a war loolu alxuraan noonu la wàcce noonu lañ ko wattoo noonu lañ ko boolee def ko muy ab kaamil ah nag tur ñi nga xam ne ñoom mokkaloon alxuraan ci jamono yi yonent bi nag sallallahu alayhi wa sallam lim fukk ñaar ci aw góor sidna na ibnu Affan sidna Ali ibnu Abi Talib sidna Abdurahmaan ibnu Awf sidna Muaaz ibnu Jabal sayduna Zayd ibnu Saabit sayduna Abdullah ibnu Mas'ud sayduna Salim ibnu Abdullah sidna Mawla Abi Anifata sidna Umar ibnu Aas sidna ay Abu Ayyub al Alabi sidna Ubay ibnu Kaab ak sayyiduna Tamim ad-Dari ridwanullahi anhum ajmain ñooñu ñoo mokkaloon alxuraan ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ku yooyu ak ñaar léegi nag ñu jëm nag ci wan la ni sunu borom màggalee téere bi ba nga xam ne moom rek moom la def mu di ab téere yàlla jàppiwul benn téere muy téere bu dul alxuraan ngir ci bopp téere alxuraan la tàmbali di ko tudd bi mu tuddee téere ba noppi bàyyiwul fa mu toll rek fàttali ko ndax tudd yi mu ko tudd man xam naa ci lu war a mat ñaar fukki yoon ak benn ci bopp ay saar muy alif laam miim daalikal kitaab te baqara alif laam miim laahu laa ilaaha illal qayyuum nazzala alayka alkitaab Ali Imran alif laam miim saak kitaabun ca la araf allaam ree tilka ayatul kitaab Yunus allaam ree tilka allaam ree kitaabun ansalnaahu allaam ree kitaabun hukkimat ayatuhu Huud allaam ree tilka ayatul kitaabi almubiin Yuusuf alif laam miim ree tilka ayatul kitaabi Ra'di

tanzilu kitaabi sumar hee mim tanzilu kitaabi xaafiri sambi hee mim tanzilu kitaabi hee mim wal kitaabi suxuruf hee mim kitaabi duxaan hee mim kitaabi jaasiya hee mim tanzilu kitaabi laxxaaf wutur ba kitaabin tuur bokkul ak tur yi nga xam ne tudd na ko ci bopp saar te tuddee ko alquran Ah, seet naa ci loo xam ne war naa mat juróom benn yoon muy aaxe maa ansalna aleyka alquran taa siin tilka ayatul quran foofu sax teg na ci wa kitaab mubin ca nam li yaa siin wal quran saad wal quran qaaf wal quran arrahmaanu allama al quran bokkul ak xeemim tansilu min arrahmaani rahim ci tafsir bokkul ak lam ko tudd ci biir téere bi ay yoon yoon gannaaw loolu biñ la wanee màggug alxuraan ak ko buur bi màggalee ba fu mu toll di ko tudd nu jëm nag ci wan la màggug téere bi ak waruk jàng gi ak njariñal jàng gi ci saahir ak ci baatin war gi mooy daanaka mën nga ne moo tax suñu borom yobal fi Moustapha sallallahu alayhi wa mën nga ne daal warug jàng alxuraan tax sama borom yóbbu Moustapha sallallahu alayhi wa sallam ngir yàlla digal na ko jàng alxuraan yaari yoon yu bokkul ak ba muy jàng mu naan ko fa ida qara'naahu fa tabi qur'aanahu fu may na alina bayaanahu yoon yi mooy iqra bismi rabbika lasi xalaqa xalaqal insaana min alaq iqra wa rabbuka lakram jàngal jàngal ñaari yoon wax na ko foofu sunu borom daal di ko nag bi nga xamee ne nee ko jàngal bay wàcc ci moom ba mu yàgg mu walbatiku nag nee na nenu yéen ñi nga xam ne gëm ngeen Moustapha yéen tam jàngaleen digal ko yaari yoon muy faqra'u maa tayassara min alquran alima an sa yakunu minkum marda wa axaruna yadribuna fi lardi yabtaquuna min fadlillah wa axaruna yuqatiluna fi sabilillah faqra'u maa tayassara minhu wa aqimu salaat wa atu kon euh, soo seetloo xam ne jàng alxuraan moo gën a war lu dee si def ngir li muy yàlla li muy fonk fonk julli juróom jàng alxuraan lanu njëkk a digal soog noo digal julli ak asaka kon nag nun mu yi nag nag nun jàng alxuraan war nañu yetti yoon gannaaw bu nu ko yàlla digalee yaari yoon borom ti wa dafa dikkaat jël nu ko digalaat wax ne kullu muridin bi yelloosu falyudim tilaawatan li xayri dikrin qadru sim kullu muridin bi yelloosu falyudim tilaawatan li xayri dikrin qadru sim ajrul ilaahi wal jasaawu wa li may liman yaqrawu afdalal kitaab képp koo xam ne dafa jëm ci yàlla te wéeru ci man na saxal jàng téere bi nga xam ne mooy ngën ji téere ndax yoolub ndax ajurillaahi wal jisaawo saab yetti ñetti baat yooyu ajuru ak jisaawo ak saab yett lañ yoo xam ne ñu ngi firi ab yool waaye bokkuñu maana ajuru mooy li waa ji diggee waaja ne soo ma liggéeyalee ba àggee wala su weer dee ma fay la nangam kooku mooy ajuru jisaaw ba mu ko liggéeyalee liggéey bi mu xool ko mu baax wala xool na ko mu bon mu seet na mu liggéeyee mu fayee ko noonu mooy gisaaw ni faaxan sababu mooy nag ba liggéey bi da ko xool xolam sedd ca mu am lu mu ko neexale ku jàngal xuraan yàlla dana ko fay fay gu dëppoog li mu def di ko neexal sunu borom dellu nu jigal la nuy jëkk wax bala noo jàng alxuraan dafa wax ne fa isa xaraatal quraan fasta'is billahi min asheytaan rajim innahu laysa lahu sultaanu allazina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun innama sultaanu allasi tawalawno wala sunu sooy jàngal alquran da jëkk wax onze billahi min sheytaan rajim ndax ku jàngal alquran seytaan du mën ceew dara du am ceew benn moomeel ak ak noteel ñaa ñi moom kay not leen mooy ñi nga xam ne dañoo bàyyee alquran nekk ci leneen te bokkaale yàlla ak leneen sunu borom dellu nu wax sunu jàngee alquran ba noppi lanu cay amee daf ne fa ida qara'ta alquran ja'alna baynaka wa bayna allazina laa yuminuna bil axirati xijaaban mastura su ngeen jàngee alquran koo ca xam ne ci yéen ñi jàng na alquran danaa def kiiraay diggante moom ñu gëmut yowmal xiyaam kiiraay loo xam ne day tal xijaaban mastura mooy loo xam ne dañ koo ub ba noppi tëj ko suñu borom dellu nu xamal ki mënul dellu xamal ki mënul a jàng alquran te xemmeem lool mën a jàng alxuraan suy déglu kuy jàng alxuraan te ne cell la mu ci amee mook kay jàng sunu borom nee na wa iza quri alquran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun mu ne wa iza quri alquran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun suñuy jàng alquran yéen ñi mën la jàng na déglu te na cel su ko defee yàlla da leen di yërëm yéen ñi jàng ak ñi nga xam ne ñooy déglu suñu boroom dellu wone musiba miy dal kii ubbi dënnab gone jëkk ci àgg dugal xam-xam boo xam du alxuraan ki nga xam ne moo jëkk dalal doomam xam-xam boo xam ne du alxuraan suñu boroom wax na musiba mi koy dal daf ne man sharaha bil kufri sadran fa alayhim xadabun min allahi wa lahum adabun azim dalika bi annahum istahabu alxayaat dunia ala alaxirati wa anna laa laa yahdi alqawma alkafirin ulaika alladina tabala ala qulubihim wa samihim wa absarihim ulaika humul xaasirun laa jarama annahum fi alaxirati humul xaasirun ki nga xam ne dafa ubbi ab dënnab gone jëkk caa def xam-xam bu alquran ndax xam-xam bu ñu jàngale boo xam ne du alquran ñu di ko dalal gone ba ñu di ko dalal gone bu mu mën a doon mi ngi bàyyi ko ci yëfa moo tax mu ne man sharaha bil kubri te daram kookee de nee na meram yàllaa ngi ci kawam te itam ña ko fa dencal mbugal mu màgg ndax lu ko waral adduna da koo gën a alaaxira te yàlla képp koo xaay da ngay weti du la gindi ñooñu seen xol sama borom da koo muur ak seen dégg ak seen gis ñooñu daal ñu sagg nañu te ñooñu day li ma wóor mooy muntu sikki ci ne yowmal xiyaam perte rek ah gannaaw bu loolu wee mu de mu de la woon leneen deesul wax ne xam-xam budul alxuraan ab jullit du ko jàng du ñu la wax loolu ndax xam-xam bu ne dana jëriñ ci àddina alxuraan képp mooy jëriñ àddina ak alaxira waaye ab jullit balaa jàng benn xam-xam war naa jàng alxuraan jëkk